li xam ne mooy jëwriñ ji toppatoo wàllu alam bi ñëw assemblée ñu woote fa benn euh, xàll yoon mu ñuy wax loi boo xamante ne bu biosécurité loola nag mu may léegi ñu dugal liñ naan OGM maanaam jël suuxub mbaam xuux ñu def ko ci tamaate dem ba wëlbatiku yow booy lekk da nga lekk tamaate waaye da lekkaale mbaam xuux lu mel noonu loolu nag buñ ko défé légui moy ne ubbil nañ buntu lo xamantene ah lo xamné fièvre bu né mën nako indil euh, wa Sénégal kon ñi ngi ñaan président de la République yow mi nga xamné ya wara khatim promulgation loi sur la biosécurité bu ko def mok boko défé Sénégal mom dugg na ci guddo go xamné ne kenn xamut mi euh, euh, guddi gu bër setagul ah, le ministre de l'environnement et du développement rural allez à l'Assemblée voter la loi sur la biosécurité qui autorise l'entrée des organismes génétiquement modifiés OGM au Sénégal. Ces OGM, nous ne savons pas qu'est-ce que ça va nous amener sur le plan de la santé, sur le plan euh, euh, de l'environnement, des écosystèmes tout court, mais aussi sur la santé animale. Cela veut dire que demain, nous pouvons avoir une autre colonisation, la colonisation par le biais des semences. Cela veut dire que le pays est entré dans une phase extraordinairement grave. Et nous appelons le président de la République de ne pas euh, véritablement promulguer cette loi, mais aussi la nouvelle Assemblée d'être consciente des enjeux.